لي سكينة بكل الجنة من داري من نيات المنة ñu ngi julli ci sangu-sang yëpp sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu ñi fi teew ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu baax bii toog mu di sëriñ Bass Khadim Awa Ba ñu di ko ndokkeel bu baax ci bisu maamam bii waaye di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla dolli koo sàmm ak mok ay rakkam ak ay magam di nuyu bu baax sëriñ maam Cheikh Ayes moom itam muy sunu xarit di sunu soppe waaye di nuyu bu baax ki nga xam ne tey moom mooy sunu bunt fii muy sëriñ Cheikh Mbacke mii nga xam ni sunu soppe la sunu xarit la waaye di fonk bis bi lool at mu jot mu boole ñu ci ñi nga xam ne bu bis bi dëgmalee mu invité ñu ci bisam bii nga xam ne xam na ni moom ëppale ci bis bi ndax damay faral di wax ni damay faral di wax ni bu ñu dee lim ay soppey Serigne Touba ku ma deful première it def ma deuxième te loolu yaakaar naa àddina bi yëpp xam nañ ko yàlla boolenu ak moom muy sunu soppe di sunu wëllëre ñu di ko ndokkeel bu baax nag ci bisu maamam bii di ko ñaanal yàlla bu baax lépp loo xam ne mën na ko ren bu déwénee yàlla na ko yàlla may mu mën lu ko ëpp ndax nag mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la sëriñ Touba dénkaane woon mooy waxuma la ko bokkalul tariixa waaye Cheikhul xadim dafa waxoon ni kiy wax laa ilaha illallah sax amoo droit noonu ko bu leen noonu mukk koo xam ne mi ngi génnee ci gémmiñam laa ilaha illallah waxuma la ak nag koo xam ni yéen a bokk lislaam bi bokk diine ji moom cheikhul xadim mu wax ni tarixa yépp ca yàlla lañ jëm wa kullu wirdin yuridu lmurida li xadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila aljaylaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi cheikhul xadim moo wax ca masaalikul jinaan wax ni tarixa boo jàpp soo ko bawul mu yóbbula la ca yàlla te ku ne xam na ni Seydil Hadji Malick ak Cheikhul Khadim ñoo bokk menn maam muy maam Maaram te keroog ah, moom itam moom Seydil Hadji malik mu wax ni at turuxu kulluhum ila rahmaani muusilatun muslikatun yaa jaani Seydil Hadji Malick dafa wax ni tariixa boo jàpp te bawoo ko mu yóbbula la ca yàlla comme ni ko Cheikhul Khadim waxee kon mbokk yi ñii li nu bokk mënuñu koo séddoo ay soppe la woon yu yàlla boole maam Seydil Hadji Malick toog na di waxtaan ak Cheikhul Khadim ba waxtaan wa jeex maam Seydil Hadji malik ni ko man dey Ahmadou jàpp naa la maam Seydil Hadji malik ni ko man itam alaaji Malick jàpp naa la te li ma la jàpp dama koy bind bàyyi ko fi pour bu ëllëg ëllëgee ñii ñëw ci sama gannaaw xam ni alaaji Malick ak cheikhul xadim benn la nu woon keroog la ko cheikhul xadim wax ni ko wa ma taxastu xalilan kuntu arifuhu illa jaaltuka fawqal kulli bi rutu bi mooy xarit bu ma amoon bis ni ki tey xarit booba wàccee naa ko def la yow Seydil Hadji Malick ngay sama xarit di sama sëriñ di sama soppe di sama wëllëre di sama mbokk ci wàllu yàlla kon mbokk yi mag ñi nii la àndee woon ñu ñaan sunu ànd bi yàlla na ci yàlla teg loxo ndokkeel ñëpp ci bisu sëñ Massamba bi di ñaan Serigne Moustapha yàlla na yàlla yokk ay leeram njaboot gi fi des yàlla na ci yàlla teg loxo kàddu yooyu rek lañu ñu ne woon nañu ko sànnante ak yéen ñëwoon nañ fi daaw ñaanoon yàlla ni ko yàlla yàlla nga nu may ñu fekke déwén déwén boobu mbokk yi mooy ren ji noonu la ñuy ñaanaatee yàlla ni ko yàlla yàlla nga nu mayaat ñun ñëpp ñu fekke waat te kenn bañ a màgg ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatan minna